présence, euh, il nous a été notifié aujourd'hui le rejet de notre dossier de candidature pour la mairie de Dakar en wolof. Euh, euh alors euh, d'accord euh, pour juste pour juste pour dolli rek li nga xam ne Bamba wax na ko Bamba mooy mandataire grande coalition bi pour la ville de Dakar liggéey bi nga xam ne def nañu ko tey ñëpp dañu am njàqare bi ñu waxee ne ville de Dakar liste gëm sa bopp dañu ko rejeté may leerlu rek parce que damay dégg yenn saa yi ñu naan tubaab këyit la xam dama gis ñu bind di wax ne li ñu leen jox daa matut c'est incomplet la liste elle est incomplète di fàttali rek ni Bamba waxee vingt deux heures trente neuf minutes la ñu ñëw ñun déposer suñu list bi ñu déposer liste bi vingt deux heures trente neuf minutes le 3 mën naa leen ko jox yéen journalistes yi ngeen xool téye leen bi ñu ko déposé gis ngeen ne ci biir quatre vingt dix muy titulaire muy majoritaire euh, titulaire ak suppléant quatre-vingt-dix dossiers la ñu alors que pour Dakar quatre-vingt-trois dossiers la demandé ñun ñu déposé quatre-vingt-dix dossiers ñu gis ne ci diggante titulaire bi ak majoritaire ni ñu ko agencé agencement bi baaxul bi ñu remarqué ne baaxul moom Bamba mu delluwaat ci préfet bu Dakar et d'ailleurs c'est le moment de fustiger ñaawlu doxalin bu préfet bu dakaar ci dossier bu gëm sa bopp bi parce que bi ñu ñëwee fàttaliku leen ne moom préfet boobu moo bindoon lettre ne naa bindi affice yi ma defoon ci mbedd mi moom préfet boobu ba ma demee Mbour moom moo waxoon ne duma dem ci tefes gi kon préfet bu ndakaaru bii gëm sa bopp yàgg na koy tere nelaw waaye yàgg nay lijjanti suñuy mbir mu ne Bamba Fall liste bi nga bëgg consulter mënoo ko consulter donte Bamba moom mooy mandataire bi mu ne ko mënoo ko consulter alors que le code ne dit pas code bi dafa wax ne moom mii di mandataire saa su ne mun naa ñëw xool list bi parce que ñun bi ñuy déposer minuit jotagu toon bi ñu xamee ne am nañu problème ci agencement ñu dellu siwaat ci préfet bi ne ko dañ ko bëgg soppi moom préfet bi daf ko ko bañal ci kanamu waa SEDA kon yéene bi ñu amoon ñoom mooy galgal gëm sa bopp yéene bi ñu amoon ñoom muy indil jafe-jafe gëm sa bopp parce que nag ci loolu la ñu nekk boobaak léegi gis ngeen li fi xewoon fan yële gis ngeen lii nii te biir na ma ne du fi yem danañu ko continuer waat di fàttali rek ne jour boobu maa ngi koy fàttali tey bi ñu toogee ci bureau bi ñii ñëpp bi ñu ñëwee dañ leen bàyyi ci biti ñuy remplir ak a raturer ak a arranger ñi nekk ci nguur gi bi ñu ñëwee dañu leen ubbil bureau bureau adjoint préfet lañ leen ubbil ci biir préfecture Ndakaaru dugal leen fa taalal leen climatiseur jox leen lépp ñoom ñuy remplir seeni list jox leen imprimante et loolu ci xaalisu contribuable sénégal yi alors c'est des attitudes yoo xam ne dafa war a arrêter dafa war a cesser di fàttali rek ne lii ñu def listu gëm sa bopp pour Ndakaaru jubluwuñu ci lenn lu may xàllal yoon Abdoulaye Diouf Sarr jubluwuñu ci lenn lu may seen candidat pour ville Ndakaaru mën a jàll et loolu gis ngeen li ñu tàmbali ci Barthélemy danañu ko song songaat ñeneen ak ñeneen parce que li ñu bëgg mooy seet ay fas yoo xam ne ay fas yi màggat lañu ak i fas yu mënul daw ñu boole leen ak Ablaye Diouf saar ngir mu duma leen alors loolu nag il faut ñu xam ne sénégalais yi duñu ko nangu ñun danañu def recours yi nga xam ne loolu lañu yoon may danañu jaarale mbir yi fi nga xamee ne foofu la ñu yoon may et incha allahu rabbi xeex bi danañu ko continuer pour ñu xam ne gëm sa bopp réalité la ci réew mi la preuve tey ñi ngeen fi gis ñoom ñëpp ñu ngi ci ay commune fii ci Dakar déposé nañu amuñu problème donte am na ci yeneen juróom-ñaar ci commune ci Ndakaaru yoo xam ne fexe nañu ba rejeter dossiers yi yeneen yi am nañu ay jafe-jafe ñu forclos leen mais au moins ci biir dakaar on a actuellement douze communes yoo xam ne suñu ay candidat jàll nañu fa géejawaay moom lépp jàll na Pikine lépp jàll na Kër masaar lépp jàll na Rufisque lépp jàll na li des ci Sénégal bu may xayma fi mu nekk nii au moins ñu ngi ci trois cent cinquante deux communes yoo xam ne mu ngi ci Sénégal te gëm sa bopp am na fa candidat di wax rek ci jafe-jafe yi ngay wax loolu moo xew boggal boggal suñu candidat nekk mandataire dafa dem ba jël jeton wam mooy li ñu lay jox pour wane ne yow teew nga laata waxtu wi ñu dem ba ci biir ñoom ñi nekkoon ci wàllu organisation bi ñu ne dañoo sonn dañuy ñibbi waa ji yor jeton ñu ne ko duñu jël sa dossier demal demal sa yoon alors loolu aussi on a fait constater par un huissier à Bogal et incha allahu rabbi danañu ko topp waaye li ñu bëgg rek ngeen jàpp ko mooy information bi ñuy wax naan euh, liste bi dafa incomplète comme si joxewuñu list bu mat demewut noonu kayit bii ma leen jox gis ngeen ne juróom-ñeent fukki dossier la joxe ci mairie Ndakaaru juróom-ñeent fukki dossier la preuve sax PV bi nga xamee ne jox nañ ñu ko moom Bamba Fall daf ko signé def ci ay annotation def ci sous réserve moom Bamba parce que la mu wax mooy da ngeen bind ci décision bi ne liste total bi liste total dafa incomplète Bamba ne leen déedéet liste bi ma leen jox mu ngi nii quatre-vingt-dix la waaye yéen lii ngeen ma jox da ngeen ci bind incomplète kon man bu may signé damay wax ne li ngeen ma wax ci seen décision bi àndul ak lii dëgg donc la réalité mooy on a déposé quatre-vingt-dix dossiers à la ville de Dakar au niveau de la préfecture ñu gis ne dañu am problème mu agencement mais problème mu agencement problème matériel la kii tey moom moo nekk Sicap am nay jafe-jafe dañ ko woo ne ko list bii nga dugal lii génnewaat ko dugalaat ko Kalidou Niass mi nga xam ne moom mooy mandataire national bi lu tax teewul fii parce que euh, euh, sous préfet bu Géejawaay bu sous sous préfet bi nekk ci euh, Wakhinane daf ko woo ne ko am nga ay dossiers yoo xam ne dafa incomplète dossiers yi incomplet yi Euh, dañu il faut nga changer ko parce que ñii waruñu wotee fii mais mais mu dem changer ko ni mu koy waxee noonu à dakaar ñoom it am nañu problème boobu ñu woo leen ñu ñëw changer ko waaw mais pourquoi ñun ñu am problème mu agencement du ñu ñu woo ne ñu kaay leen yéen it ngeen changer ko ni ñu ko loi bi maye ñu bëgg ñu xañ mairie Ndakaaru waaye li ma bëgg ñu xam ko mooy seen pexe amul benn problème ñu jéem lu leen neex waaye man ak ñi ma àndal pare nañu te waajal nañu suñu bopp xam na ni lu ne lu métit lu ne ñu ngi ñu koy teg waaye kii nga xam ne moom moo ñu tiim gëmmut nelawul duñ ñu dégg ñu yuuxu mukk nag duñ ñu déggit ñu saalit mukk waaye lépp lu ñu yoon may danañ ci tegu te gëm naa ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir ndakaaru gii incha allahu rabbi bari na ci commune yoo xam ne danañu ci teg loxo te danañu dem ca fa nga xam ne moom moo di ville bu Dakar kon daal jàpp leen ne incha allah danañu def recours bi au niveau de la cour d'appel am nañu nag yaakaar ci suñu justice su réew am ci ñoom yaakaar mooy tax lii nga xam ne préfet bu ndakaaru def na ko te xam nañ ne ñun jubluwu ci lenn lu may lu neex buur jubluwu ci lenn lu may ñu yokki garaatam parce que nag dañuy wax ne ki la abali gët fu la neex fi ko neex ngay xool kon xam nañu ne moom moo tax muy jëf li muy jëf waaye jàpp leen ne ñi ñu àndal ay nit yu am expérience lañu xam nga ne Bamba Fall liste bu mu liggéey mënul nekk yëfi cuune ñii ñëpp ku ci nekk yaa liggéey ci sa liste bopp nekk seen commune liggéey ko ñëw fii Ndakaaru ñëw fii ci ñun ñu liggéey list bi war a dem ville ñu dem déposé ko kon daal jàpp leen ne lii nga xam ne préfet notifié nañu ko mooy notification bii ñun jël nañu ko waaye wax nañ ko ne ko ànduñu ci parce que liste titulaire yi dafa wax ne liste bi matul ñun 45 la ñu joxe daal di joxe 45 titulaire 45 suppléant ñoom ñu ne 55 titulaire la war a doon 27 suppléant boo ko boolee muy 83 waay waay waay waay waay booy laaj 83 ku la jox 90 xanaa kooku amul problème mu dossier. comme ci 48 heures yi ñu ne képp koo xam ne am nga jafe-jafe mën ngaa ñëw soppi walla nga changer mais kon nañ ñu boole ñun ci loolu parce que problème mu agencement la ñu am nañ ñu may possibilité ñun it ñu mën a agencer donc lii daal mooy kàddu yi nga xam ne doon nañu ko yëkkati di di di di di di rafetlu. Euh, euh,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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps